plan yi je ne le crois pas et, et je vais dire pourquoi je ne le crois pas eh, yi dafa dafa def ay ay ay ay boo seetloo les derniers moment avant muy def sa déclaration à chaque fois quand il s'adressait à son parti ou bien à Benno Bokk Yaakaar il disait tout le temps nous mm-hmm. il utilisait la première personne du pluriel mmh. c'était un signal fort même bi mu demee France moo xam ne lu gars yi na ko jeu mu leen lu nu donc moom xam na fu mu doon jëm mhm. mais ñun not parti dañu am problème d'organisation ah, waaw mhm. parce que tey am na nu ñu doon taxawee tey problème choix sax nuñ ko am et ça c'est pas Macky et ça c'est pas Macky qui doit le faire ce sont les communes que devaient s'organiser ñu dem ba ca kaw Eh, loolu ku ko def ba duñ la dàq ci parti bi. non kenn du la dàq. Ah, la la non xam nga lan la xam nga nit ñi lan la ñuy comprendre. seen parti bi voix discordante lay bañ de. non xam nga mais voix discordante yooyu c'est pas le président c'est pas le xam na li may wax c'est pas le président. peut-être c'est nous sommes. Adama mi waaw xam na li may wax bu baax. parce que dund na ko bu ko dund doon Adama mënoon na ne feneen fu fi mu ne. donc la ma man dund naa ko. honorable merci beaucoup. man dund naa ko keneen dund naa ko. yow xam nga kii Adama rek la yàq. non dama koy gërëm rek ci point boobu. xam non non kii c'est un membre fondateur. en 2009 ñu ñoo yoroon coordination Dakar. mais nag Oudé nu mu la gisee noonu lay ëwalee. non non waaw non ah, non non. ak ah, ah, yow kii sama noonu la. kii moom dama lay wax rek. membre fondateur rek pour jël le train en marche. man sama man sama man sama gàttum ëllëg. Macky n'a pas intérêt. gis nga en 2009 xam nga 2010 dañ toog di waxtaan. avec on était un groupe restreint on leen écoutez les man xale laa quand j'ai ce pouvoir là mun naa dem monnaie mon talent ailleurs mm-hmm. yi ngeen ne newuma ci mm-hmm. moom bu arrêté il aura 63 ans je crois tout à fait cinq ans après il aura combien 68 ans ans tout à ans c'est l'âge mature pour être pour gérer un kon dafa am. non non non boo de non c'est non non non c'est une façon de parler xam nga la maturité. gis nga maturité. xam nga bu ñu bu ñu jël comme les pays européens nga xam ne ñoom dañu defaru bu yàgg ba pare. nga xam ne ils ont besoin d'un manager. quelqu'un qui coordonne. quelqu'un qui est là quoi. ñoom surtout ñoom ce qui les intéresse le plus c'est la défense nationale les questions de sécurité. et peut-être question de justice loolu moo leen intéressé mais li des yëpp ñoom dañu defar ba pare dafa wute ñun ñun dans ñun on au niveau des pays africains regarde ce qui se passe en Afrique dans la sous-région regarde ce qui se passe si si nos peuples si par exemple on avait beaucoup travaillé sur le rôle des peuples africains xëy na tey li xew Mali xew Burkina xew ailleurs du am. Eh, eh, eh,